waaye surtout damay yëkkati kàddu ci turu le collectif des médiateurs religieux pour la préservation de la paix civile parce que keroog yàlla dogal na le 26 février 2021 ci lañu ñu amoon Euh, euh, dal bu ñu président Ousmane Sonko dalaloon këram fii ci euh, kër góor gi cité kër góor gi Abbé Jacques Seck moo jiite woon délégation bi waaye yàlla dafa dogal mag la il a quand même quatre-vingt-sept ans waaw moo tax tey bu doon sagoom mooy jiite délégation bi ndax diiru diiru fanweeri minute yi ñuy seq laaj ak tontu ak Ousmane Sonko Euh, mu am benn xale bu doon wër yore appareil di photo rek ba ñu paree nag ma laaj ko noo tudd mu ne ma Ibrahima Ibrahima sant wi naka la sax Fall ma ne ko day abbé abbé day dafa bëggoon ci souvenir yi mbaa di nga ñu ko mën a yónnee mu ne waaw ma ne ko boo sàmmul sa kàddu alamaan bi dana dal de mu ne grand kay balaa nga egg kër ga photo yi dana ñëw yàlla dogal ba ma eggee xool sama whatsapp gis photo yi waaye terewul dañ ci teg diir yu gàtt rek moom Ibrahima mu woote ne ma grand affaire ñëw na ma ne ko ñëw na rafet na lool parce que sama assistant bi ana biram biram photo yi mu jël leerul waaye yow yi nga jël leer na mu ne ma kon grand mbaa bàyyi nga alamaan bi ma ne ko bàyyi naa ko kon nag di xale bu lawet xale bu sedd waxin xale bu am yar ak teggin moo tax bettuma bi ma yëgee tey nii depuis les heures chaudes du PASTEF fu Ousmane Sonko teg tànkam mu teg fa tànkam moo tax live yi ngeen di gis Ousmane Sonko di ko def yëpp ñëpp rafetlu ko ci technicité bi ginnaaw yàlla ak taxawaayu Ibrahima la kon nag euh, li soldats yi di wax rek dafa dee ci toolu xare ndax suñu borom daf ko moom en pleine mission ku dee ci toolu xare nag ci. Euh, Euh, euh, euh, ci ummatul islamiya ñu ngi lay faral di tuddee shahid maanaam martyr la kon nag comme que jëriñ leader am jëriñ réewam moo tax mu ñàkk bakkenam ci toolu xare ñun ñu ngi am njorte ne suñu borom dana ko fay xolom yàlla suñu boroom suñu borom beesalaat yërmandeem ci kawam njaboot gi mu fi bàyyi ak way jur yi mu fi bàyyi itam yal na suñu boroom teg loxo ci ñoom njaal wi nag ma teg ci. ses camarades de lutte mu di euh, les patriotes ana ana Jules Souleymane Souleymane keroog maa ngi tooñ Ousmane Sonko ma ne ko yow kii responsable Jamra la fexe nga ba nangu ko ci man ndax kii moo toogal Jamra à Londres waaye Sonko nangu na ko nee naa ko nag di nga ma fay kon jataay bii ma leen di nettali ak Ibrahima te mu daw yaram lool keroog kii laa àndaloon kon nag munu ñu woon ñàkk a teew fii mm-hmm. voilà ñu ngi koy jaale patriote yëpp di ko jaale itam suñu xarit suñu kóllëre suñu doomu ndey la président Ousmane Sonko di ko xamal ne abbé Jacques Seck bi doon coordonnateur du collectif de religieux pour la préservation de la paix civile mooy bi dëkk bi amee coow ci mois de février mars ak oustaz Youssouf Sarr ak mënuma lim ñëpp parce que juróom-ñett nañu jàppaleen ne ñëw gii ma ñëw ñoom ñëpp ñëw nañu voilà kon nag yal na leen xar wi dëddoo ak jàmm te yal na leen yàlla taxaw ngeen mën a eggali seen mission ak jàmm Sénégal jëm ci kanam te lépp euh, tegu ci jàmm lépp tegu ci yoon incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah